تركت ما كان لي ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha xam naa wax bu gàtt doon ndax waxtu dañoo xoj te lislaam moom lépp lu ñuy def di ko ci jëme la ci jiitu mooy julli ndax asalaatu imaadu diin faman aqaamaha fa aqaama diin wa man hadamaha faqad hadama diin bu doon tawax bii lañ koy misaal mooy keno bi ko téye nga xam ne bu taxawut rek day màbb kon ci ndigalu sëriñ bi ñu ngi nuyu bokk yi fi tedd yi tedd yi fi tedd yëpp di bokk yi nga xam ne ñoo bokk ci sëriñ bi te bu ñu tegee ñëw ci loxoom Cheikh Saliou Mbacké ñu Cheikh Mouhamadou Mourtada ñu nga xam ne mooy kilifa jotaay bi waaye itam jiite lii nga xam ne waa mubaadara la mubaadara tayiba la boo xam ne waa daayira Touba ca kanam ñoo am xalaat ci jiite bi suñu kilifa bu baax bi sëriñ Aliou Mbacke Cheikh Mamadou Fadel ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal kuréel bi yëpp bu ñu sëriñ Aliou Mbacke sëriñ Aliou mi nga xam ne mooy jëwriñu ci liggéey bi mu mën a yóbbaale bokk yi ko seq yëpp ndax Touba ñu yaakaar Sëriñ Tuubaa ñëpp ci biir amul frontière ndax moom ponk bu réer ci dëkk bi ci liggéey Sëriñ Tuubaa tey yàlla defe leen ci tawfeex da Sëriñ Tuubaa doo wax ci nax ju loolu sa jëmm ko tax du waaye mu ngi sama jëmm sax moom saadatil fata ay furxa sax allah yoo baru fa abusé sax waaye sëriñ Sane la ko waxee sëriñ Tuubaa nee na fa xoolu taalibe yi jëm rek fa fa la xool ñu bëgg lu baax ñëpp commencé nañ ci seen xol moom ngeen xam ne ci lu baax rek leen tax a ci lañ nekk te lépp nit tegu ñu kon nag bu yàlla defee ci ñoom xam ngeen ne fànn yëpp ñoo ngi ciy góorgóorlu ci defar ci kii bayul ñenn fànn ñañ ca assainissement ba ñañ ca tëli ya ñañ ca làmp yi ne xam ne liñ ci def ci rek ci làmp rek bari daal alxuraan yi itam seen taxawaay ñoom ci naan ko suñu doom Serigne Mamour Bakary Serigne Mamour Moussa ak ñu ko seqal waaye ci seen i seen suñu kàddu ñoom yoo xam ne koo ci seen rek da xam ne kii ba rek teel def nag lii nekkoon am ruq bu sew boo xam ne ñu bare bare bare dañ koy fàtte te dara jiitoo ko ci lislaam muy ndax boo xoolee. suñu borom fu muy waxee ci fu mu waxee julli rek asaka ci teg voilà xel bi bay génn wa aqaamu salaata wa aatu zakaata wa lam yaxsha bu tuddee julli rek asaka la ci teg te mel ne nit ñi dañ koo woyo xol ba tax ñu di ko fàtte ndax ni alal di taq ci xolu borom waaye nag dañ xam ne asaka bi bokku ci alal dañ koo mën xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha kon asaka nit ñi buñ xamoon li muy jëriñ xam la ci suñu borom jubloon kon ñëpp day dem marché ci gën a góorgóorlu ci foog ndax liñ ci gën a jub mooy dana laabal alal bi su koy def ndax alal bi des te asaka moom ko bu xasee ma misaal ba asaka wàcce war na ca askan ak ci biir puudar foog bi ko foog a doon sax néew na suñu borom lu muy détaillé ci biir ak puudar daanaka réew suñu raasa bi néew lu cëpp lu jugee rek doo xam yàgg na waaye innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakiin wal aamiliina alayhaa wal mu'allafati quluubuhum wa fi rriqaabi wa bni s-sabiili fariidatan min Allaahi wallahu aliimun wala mu ànd fa te xulul moom yooyu boo demee ci Ibnu Aasir bi ñu waxee mu allaful xalbi wa muxtaajul xayb xaasin mu ko waxee sax ca ila axir bayt kon asaka yi ko war a dox borom xam ko lu ci dara am na sax te ko ñëpp ko baasi moom ci li koy lu bari ci ñi néew doole asaka ñoo ko génne lépp boo waaj mën na daan dara wàcc te Serigne Touba xam nga lu bari ci taarix bi mais ñëw na yëkkati ay di ko jox asaka la ci biir Serigne bi day dem na ko génneel asaka yi boo ko nekkee kon nag mbokk taarix bi gën a yeewu ci xam ne asaka bokkut ak asaka àq la joo xam ne àq suñu borom la yow mi liggéey alal ji ba leew ba waxtu fekkaat ko génnagul laaw moo waral xam nga ne naka ci lislaam baytul maal téere yi bari daw ko ci daan jàng waaye daanaka nit ñi dundatul ko sax ndax amatul ndax yooyu ay attale yoo xam ne ko fàtte ko wal wal aamiliina alayha bu ko déggee booba ci yooyu jamono dañ daa sàkk ak kuréel buy dem di ko laaj ak di ko joxe kon kuréel gii taxaw daal nañ xam ne loolu buñ ko nosee comme ñoom liñ baaxoo def ci seen bi yëpp luñ ci dugg yaa defe nañ ci ni ba defe nañ ca ndax day jiital xalaat bu xóot teg ko ci yoon doo ko liggéey ndax lii kat bañ ca laajee suñu digal yàgg na kàddu yi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha yëkkati ci soññee doy na sëkk ay kàddu buñ ci toogoon ba guddi di wax it mënuñoo romb kàddu yi rek wax kon nag Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na sëriñ bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di yàgg waa daayira kanam ngir xam ne yéen ñi ko seq ñëpp te dama koy faral di wax muy yow di sëriñ Abdoulaye ak ñi topp seen ginnaaw dara itteel loolu lu may Sëriñ Tuubaa ñëpp ñëw ci dara lu may Sëriñ Tuubaa loolu laa waral tamit ñu topp seen gannaaw ñëpp ñu ngi joxe seen xeet di dara xam ne loolu yàlla yàlla yàggal ba li ngeen sumb boo koy jàppale ki fi nekkee Sëriñ Tuubaa ci biir dëkk Sëriñ Tuubaa ñi nga xam ne Sëriñ Tuubaa dëkk bi rek moo ñu ko itteel tawi fu waay defee moom koy yàlla yàlla gën a bàtteel kuréel ba lii ngeen sumb tey bu dem ba nekk ay milliards yu bëree bëri ñoo xam ne dana mën a amal njëriñ li nga xam ne néew nañ ko de te bari na ci jamono te suñu borom waxtu wu rek di fàtte ñu war a dimbalee ñi nga xam ne dañoo néew li yunfiq min zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu Allah waaye nag kuy def lu baax rek day fekk ne génnaas ba wóor la ci des sànni na leew na yaa xam ne dafoo yéene dem bu baax bu dul lool rek lañ ca yéene jëf-jëfee wàllu kon ñu jeexal na kàddu yi di sant ñi fi teew ñëpp di leen di ñaan suñu borom li mu ci benn ci tuyaam yàlla ñu tàmbali ci ñun kat dara ci ngir sant ci ñu jàpp ci bu sadaxaat kon bind na doon